club 50 pour cent de préférence nationale mi jóg taxaw tem ngir nag entreprise étrangère yi sàmmoo ak téeméer bu nekk fanweer si seen i marché si li nu seq ak entreprise locale yi am nañu ndam de si seen combat bi ndaxte Eric Copy mi jiite woon entreprise bi di Vinci wàcce nan ko ci ginnaaw bi mun bañoon sàmmoo ak lii ñu bëgg ñaar fukk ak juróom-ñaari entreprise yi tënk seen bopp si club 50 pour cent teg ca booba Abdoulaye Sylla njiitu Ecotra ñoom di soofantal ak ñàkk respecté li ñu bëgg bokkul ci li ñuy négocier moo taxit Eric Kopi abal na leen ci fàttali moom entreprise am bii de moo yoroon liggéeyu barrage yu Gallo bi nekk ci région de Kédougou ñàkkoon nag ak sàmmo seeni bëgg-bëgg maanaam di 30 pour cent yi taxoon na sax nag donti seen i lëkkaloo ak Ecotra waroon na toll ci 78 millions d'euros ak i juróom-ñeenti domaine d'intervention yu mu war a liggéey ci boobee barrage moom Ecotra da ko dakkal vingt yi nag jàpp ni sax mbir mi day gën yombee ci beneen entreprise libanais club cinquante pour cent de préférence nationale wéyal xeex bi jàmmaarloo ak moom ba nu jëlee ko fa lii nag artu la si mbooleem entreprise étrangère yi bëgg ñëw fii si mim réew liggéey ak sunu yos